collaborateurs nuyu tamit noo collègues maire dooree nag kàddu gi ci lu jëm ci wàllum collègue bi jóge fi léegi ci Macky Sall président fi mu la yóbbu jëlee lay éducation ak liggéey bi nga fa def loolu day wane wanewaat rek vision Macky Sall bi nga xam ni jam ñaajo la yem il courte vision parce que état dañ ne continuité la ñëpp apprécier li nga doon def mu indi la fi waaye ñun nag bokkuñ ci ñi naqarlu sa ñëw bi fii en tant que maire ñu connaissant ñu ñëw nag ci lu jëm ci wàllum agent municipaux yi différence bi ñu bëgg a xam mooy seen diggante ak yeneen agent yeneen employé wu état bi kooku peut-être ñaari ministres yëpp dinañu ci mën a tontu ci lu jëm ci wàllum augmentation salaire yi nga xam ne ñoom dañ leen cee ote luy jëm tam ci wàllum euh, état civil bi directeur monsieur Aliou Sall maa ngi koy nuyu état civil nag dafa ñu bëri dañ jàpp ne état central la am na ñu dem ba ba ko génnee ci collectivité territoriale waaye moom dafa nekk loo xam ne point boo xam ne ci biir maire yi presque ñëpp foofu moo nekk point bi nit ñi di gën a dajaloo officier d'état civil yu bëree bëree bëree bëree bëri monsieur le ministre ay jafe-jafe yu méttee méttee métti la ñuy am ñu bëggoon nag sa collègue ministre de la justice nga dimbali ñu ci moom ngir lu jëm ci wàllum état civil bi ñu defaraat ko mais surtout informatiser ko parce que la ville de actuellement am na ay doomu aadama yoo xamante nii ñoo xam ne ñu ngi judd rek ay quatre-vingt ay soixante-dix-huit ñooñu moom presque ñu ci bëree bëree bëri bu ñu bëggatee léegi ay kayit pour seeni doom sax problème la ñuy am. am na ci ay directeurs yoo xam ne dañoo ñoo ñoom te lii waral loolu mooy wàllum informatisation wu état civil bi ñu ñëw ci wàllum recettes yi ci communes yi xam nga communes yëpp nag monsieur le ministre dañoo tolloowul doole surtout acte trois de la décentralisation ville yi dañ leen suqe suqe suqee suqee suqee ville bu dem kay ba commune ëpp ko doole foofu kay y problème ñun bi ñëwee au niveau de la ville de Guédiawaye loo laal ñu ne la Sam Notaire ko moom loo ñu ne la gunaasa ko moom loolu laal ñu ne la waxi naan ma ne waa ñin kon luñ moom da ngay déglu rek monsieur le ministre acte trois wu décentralisation problème mu recette yi nga xam ne moom la indi ville maire yu bëree bëri collègue maire yi fi jaar wax nañ ko nee nañu fonds de dotation yi la ñu yaakaaroon et mais fonds yoo xam ne voté depuis l' année dernière mois de décembre mu war a génn au plus tard février wala mars dem ba mois de novembre loolu nag du dara politique kese la comme ñoom farba politique kese kese kese moo ko waral parce que Macky Sall ak ay nitam yaakaaroon nañ ne fonds yi bu génnee gars yi dañ koy politiser ci législative yi gagné leen fonds yi ñëwuñu te gagné nañ leen. ñu ñëw ci commandement teritorial bi peut-être loolu ministre de l'intérieur am na ci part de responsabilité. je l'ai mais su ma waxee yàlla rek te yàlla tax dundatuma ko les préfets et les sous-préfets léeg-léeg ñu zélé léegi léeg ñu dugal ci wàllum politique te ñoom waruñoo politique seen yoon nekku ci daanaka ay takk der lañ le commandement territorial les relations avec les maires monsieur le ministre ñun bëgg nañ loolu nga jàppale ñu ci. au niveau de géejawaay nag maa ngi gis farba di la jéem a yooyu yow sa famille yëpp géejawaay lañ dëkk sa famille yëpp géejuwaay lañ dëkk waa géejuwaay nga BRT bi bëgg nañ ñu suturaal ñu waa surtout ak ministère jàppale ñu actuellement géejuwaay suuf lu baax la kenn critiqué wu mais fii ñu toll nii nii nii nii nii nii nii nii gis nga dans le cadre du précole nous payons tous les mois trente millions dix mois trois cent millions ñu dindi ñin suñu publicité ak yëpp te ba fii indemnisé wuñu joxuñ dara topp nañ seen ginnaaw lenn nag fa la ñuy mujjee président nee na nañu gaaw BRT bi waaye arrêté travaux yi li ñuy mujj def bu ñu gaawulee jublu ci ñin inondation ak assainissement monsieur le ministre inondation ak assainissement nee nañu c'est l'état mais Macky Sall 750 milliards yi mu jël def ko ci te solutionné wul dara nañu ko jox na ko jox collectivité territoriale yi décentralisé ko yóbbu ko fa ñu daal di koy defar xam nga yow. merci chers collègues. nos agents aux agents. des collectivités territoriales pour le travail qu'ils sont en train de faire, pour leur bravoure. Mais surtout, en tout cas, nous avons pu apprécier que depuis que vous êtes arrivé à la tête de ce département, parce qu'ils sont à leur sixième plan d'action, nous avons pu voir les efforts, mais surtout vous les avez réconfortés euh, de par vos différents entretiens. Et pour cela, je voudrais vous en féliciter. Monsieur le ministre, bëggoon naa intervenir pour wax ci deux points question bu mu bëggoon laaj la parce que on est dans un principe de décentralisation aujourd'hui il suffit d'avoir des collectivités locales donc euh, viables mais des communes pour emprunter le terme qu'utilise souvent le ministre des Finances des communes à solution localement poser des préoccupations locales mais également pouvoir les régler La difficulté que nous avons, bien entendu, par rapport à cela, je crois que celui qui m'a précédé ici l'a dit, c'est les investissements. Aujourd'hui, il faut le dire, avec la logique des compétences transférées, il y a des réalisations que l'État ne fera plus dans les localités, ce sera aux communes d'assurer. Et il restera bien entendu aux populations de constater ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Pour en venir un peu à la fiscalité, je pense qu'il est important, et c'est une question que je voudrais poser également, bon, je reviendrai plus là-dessus au passage du ministère des Finances, c'est la différence entre la CLVL et la CGU. Je pose la question parce que je suis maire d'une commune, de la commune la plus industrialisée du département de Dakar, j'aurais peut-être même dit de la région de Dakar, et ça a toujours été mon plaidoyer. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on nous de vue de la CGU que Dakar, nous, nous recevons les 60%, l'État 40%, mais au niveau de la CLVL, étant de Dakar, on nous dit que toute la patente, l'ancienne patente, les taxes sont données aux villes et non pas aux communes. Alors que sur la CLVA, c'est une taxe globale que les communes se partagent. Donc, de ce point de vue, c'est un plaidoyer Mais il faudrait également qu'on puisse nous aider à faire face aux réalités du terrain. Parce que, logique pour logique, on dit que c'est le terrain qui commande. Donc, l'OLU de fait un plaidoyer, Monsieur le ministre, du, côté, du point de vue de la CLVL, que, que l'on puisse mieux comprendre. Je reviendrai dans le détail dans les chiffres. Nous avons, au niveau de la CGU, comme j'ai eu à le dire, je pense qu'aujourd'hui, l'État pourrait renoncer, Monsieur le ministre, aux 40 ce qui est tout à fait légitime pour en tout cas les, les, les collectivités et équilibré. Monsieur le ministre, nous avons le Code général des impôts. Je pense qu'il faut des réformes de ce point de vue. Le Code général des impôts, il faut des réformes parce que je ne dirais pas que la nomenclature est obsolète, mais la nomenclature ne prend pas en compte la réforme de l'acte 3. si je fais allusion un peu au régime financier du décret euh, 66, euh, 66 510 du 4 juillet 66 et également donc euh, sur la nomenclature d'une manière générale. Il y des choses qui ne sont pas prises en compte, que pas réaliser, bien entendu, Monsieur le ministre. Le dernier point, Monsieur le ministre, c'est euh, sur différents projets, la fonction publique locale. On en parle depuis la nomenclature, euh, le pro projet de, de, depuis 2011, je crois, Monsieur le ministre. Et depuis 2011, c'est souvent revenu sur la plateforme revendicative des travailleurs sociaux qui sont nos partenaires. Je pense que ce serait un aspect extrêmement important et qui nous mettrait beaucoup plus à l'aise. Oui, pour les augmentations de salaire, mais il faut une péréquation. Je connais des communes de Dakar qui ne sont pas en mesure de payer leur salaire. C'est l'État qui prend en charge en tout cas ces salaires. Aujourd'hui, si l'État est dans les mesures de nous accompagner, oui, nous sommes tout à fait d'accord pour cette réforme. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole...